Öyle diyordu ben neler bir fenna. Anu torop sa. yàlla yóbbu ko jàmm ak salaam bi baax na waaye doo tàng na de xam naa moom waaye de moom dana métti moom te tàng xam naa ne torop sa. tàng te yow mii. booba jaaxal. baa di nga wóor rek. xanaa jéem rek mooy loolu. ah na nga woor de li ngay ñàkk jom lépp itam. aywaay na nga woor loolu. na nga woor daal waaye xam na ne man da ngaa ragal lu koor moom déet damay woor de. waaye na nga woor daal. baax rek ba yaa ngi si jàmm ay nam naa la doom ay waay baa ngi sa sëy bi yaa ngi góorgóorlu doom ay waay góorgóorlu rek lépp dana baax yàlla baax na ah nu jàngati yaay booy de man sama borom kër depuis ba ma takkalee ñaareel ba léegi sama borom bi dafa jël sama ñaare bi teg ko sama kaw. te borom daa bon moom du dara bu ma xati nekk la may lépp lu ma lépp lu ma togg mu ne togg bi baaxul dafa saf kaani bi dafa dafa maanaam daal nee na man daal lépp man lu ma defar dara baaxu si moom daal mu jël kooku mu jël sama jël ñaare bi rek teg ko sama kaw. waaye yaay moom lu mu def moo baax borom bi dara baax man sonn naa yaay waaye baax na man maay dem dumantel borom bi yow eh sa yoon ñëw ci yow sa yoon sëylu woo gone day téew làmmiñam dégg li ma la wax sa yoon ñëw ci te bu ma di gas sa kàddu yow asuma li ma lay digal mooy boo eggee nga fonk sa gora boobee fonk sa jëkkër joojee dégg li ma la wax lu mu na nga ca dox laa wax de dégg nga li ma la wax bu fi nekk bu duglu waxi kii de boo ko dugloo day yàq sa sëy moom sëy sëy luwul ah yaay man naa def lu lépp lu ma xam ne su ma ko defee dinaa ju boobu wànkee def mais moom xoolul loolu nga góorgóorlu chaque jour su na ba sonn lu may def tombee bome yoon banque bi di toog bëccëg ci mu ñëw rek si barke dem moo njaay ñu jël ko tax ko ci dem yow daa sa yoon nëwu ci yow man waxuma ak yow toogal nee rek yow moom faroo yow laay waxal yow yow sëyal te sëy ci dara néew te xam ne sëy dafa met da ngay góorgóorlu loo fa mën di dégg tamit góorgóorlu rek xam na benn sëy neexu buñ la doon jox ñaar dërëm yi ne la dépassoo ko dépassoo ko dégg nga li ma la soo ca amee loo cay def nga def ko soo ca amul la nga cay def nga xam na ngay def waaye nag bul nekk di dongoon man de. na nga ne di lu fa ne daal dara loo ma ko chaque jour maa ngi dox si si lu ko neex mais moom xoolul loolu. waaw moom daal ñaaree bi la jël lépp lu muy def moom lay partagé ak moom man wax dara. te man lu ma wax mu xob si kaay. waaye góorgóorlu rek lépp dana baax te lépp dana jeex. yàlla baax nga ma bu ma dégg sa kàddu nga fay nit yi xuloo ñoom wala nga def leen du ma xuloo am góorgóorlu du ma xuloo am moom na. tëdd rek tëdd rek te moom benn na suba lay fee góor gaa ngi di waaj a ñëw sama doom ji mu ngi nii génn dañu woo góoram waxtaan ak moom ba xam ne moom dara si ñun. maman Diarra boo ko waxee. dalal sa xel de woo ko ba xam. ah maman Diarra góor bi baax na baax. ah waaw sama góoram bu baax saa la benn problème. ah waaw loolu dëgg la ma. ko woo ba xam. day fooy di bare dara xas gën a jàmm. waaw dama ko war a bëgg ñu waxtaan ak moom ba xam. yow lan la ñu wax. dama ko wéeru wéet gi di. damaa bëggoon a waxtaan ci wàllum koor bi nagam yow moom ndagam sa borom kër bi sa bint sama doom la te xam nga rek yaa ma gën a xam diri jigéen man maam ba waxtaanee moom ma dégg li ngay wax waxtaan ak man ci wàllum koor bi bu ko defee suñ dara ba ñoom maa ngi ñuy ndogalu meer du li ba keroog muy ñëw moo ñu. wax dëgg fa neex yàlla dem yaay maam jaar de baax na woo ko ren mu woo jëkkëram ba xam ñu waxtaan. ah xanaa ñu waxtaanee daal ah dara mën naa ko dem manqué de woo ko ren. Ah, léegi maam jaar bu dikkee ba tey du xuloo du xeex. loolu de nit ñi jaar loolu de moom dëgg la moom. benn problème. waaw fa neex yàlla. lu laay gën a jàmm mën ngaa dikk rek toog sama kaw xet yi. waaw te dafa solo lépp koor gaa ngi ñëw. ah waaw mi ngi noonu rek sëy moom gërëm njëkk rek waaw léegi daal yow da ngay woo sa soo waxee moom yaa ngi may dégg léegi lu mu wax lu mu la wax nga dégg man moom teg naa lépp si sa loxo ah kon baax na waaw. Ah. ay waay dama ne man ay waay man ci waay dama naan waaw sama waay goro jàmbur a ngi na sama doon ji yaa ngi si jàmm ay waay dama naa leer bi laa ñëw la yéen a ngi ci jàmm ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah ah kii mooy soxna Baye ji waaw moom la si jàmm jàmm rek billaay moom du gis ma léegi sonal ma ah billaay du ma bëgg rek moom laa doon waxtaanal sa tànki goro bi boo jaaree sa sa goro bi jaar daal boo fa jaaree ndam rek ngay am ca kaw ca kanam ndax moom mi maa moom duñuy duñu tay démb lañ yàgg nañ loolu wax dëgg yàlla te boobu ba léegi sëy bu rafet la sëy wax dëgg yàlla ci sa ci sa kër sa kër borom kër bi sëy bu rafet la sëyal baayam yaa ngi dégg kon nag yàlla waru ko mun a fayee leneen toppal ci ginnaawam rek di def lu baax di def rafet ndax moom rek lay def yaa ngi dégg waaw bu loolu jaaxle dégg ngeen li xew ayo bi ko ba nga dégg léegi ñu weeri